jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu koy defalee saa su ne dinaa génn nag waaye dinaa dem seeti ñenn ñi mbokk yi bu leen fàtte barki démb dem naa fi nga xamante ni mooy maire bu maire bu Géejawaay ki ñu fa woon mooy association FILS association FILS ci njiital ga Bamba Mbub Bamba Mbuub moo ñu woowoon di jox ay mbër di leen remise li nga xamante ne mooy seen diplôme mbëri doon ay jàmbaar yoo xamante ne def nañ formation garde rapproché ba génn am seen i diplôme muy mel ni mbër amaat na beneen métier boo xamante ne du làmb tey ma ñëwaat njaab fi nga xamante ni mooy Cité Fadia ñëw ci benn place boo xamante ni ki ko yor mbër la nekk fi di daan dooleem di wane ni saa sune rek li ma leen doon wax mbër day yor métier làmb gaa sport la boo xamante ni euh, da nga ciy def sa gagne mais li ci jiitu mooy da ngay am li nga xamante ni mooy sa métier métier bi nag ci ngay mën a am loo xamante ni bu làmb defee comme nii jamono ji nga xamante ni Covid 19 bi laal na àdduna bi nga mën di jaay def body def Lacoste def t-shirt làmb dugg bu leen ma laaj nag ban mbër laa seet si kaay yëgu du waaye xaaral rek kaay. kaay sëñ Basiru asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Atou. le grand champion ci loo ne. waa ni ngeen def tey. yaa ngi ci jàmm. maa leen di ziar bu baax. naka jàmm ji. sant alhamdulilah ñu si jàmm baax baax. daa mel fii ay body laa fi gis ay tubay lii super sang la. waa lii super sang kaki la. Uh-huh. lii kaki la jean. Uh, ak kaki zara yi pantalon. poignée yi. Uh-huh. waaw gis nga de. nekk ay lan. lii ay t-shirt la ak ay body ay pil affaire yooyu quoi. body ñaata. body sans dépend rek xam nga yi comme li ñu jaay nii comme yére qualité la moom sans dépend si li ñu jaay rek ak li clients yi bëgg quoi loolu lañ leen defal. <laughs> léegi mbër mën la wax wax ju leer de pour man mbër léppam dafa diis da koy dëgëral ba mu dëgër mais yaa ngi wax wax ju leer de yaa ngi wax waxi jaaykat de. waaw mais fi mu toll nii période jaaykat jaay lañ nekk. du période jaay doole du période boo xamante ne nii dañuy nekk si leneen période boo xamante ne nii ñun ñoo soxla client yi kon dañ leen war a wax ju neex. Hmm. di jëf ak ñoom jëf ju neex ngir mën a récupérer seen xaalis. mais Atou est-ce que mbër mën naa yor place fii bu fi Baye Mandiaye ñëwee wala walla wala wala beneen mbër wala ku mel euh, lu mu tuddati Orka mbay mbayti 2 mhm. ñëw fii est-ce que di nga leen jaay ci bagage yi. non lamb lamb la bu lamb jeexee leneen la bu ñu ñëwoon tey bu ñu soxlaa lu ñu soxla dama leen koy jaay dafa leen si xéewal xam na ñun ñoo bokk métier mi tamit mais ñun tam ñoo bokk euh, dëkk bi ñun ñoo bokk lu ñuy liggéey kenn ku si nekk dangay daw di wutiloo yóbbu kër ga loolu kese. kaaj dem ci biir bas kaay ma kar la fii jàpp naa Aatu Junior kaay ci yàlla Aatu tey ma bett la ñëw ci bërëb bi nga xamante ni fii ngay daanee sa doole waxoon naa ko ci sama biir ouverture barki démb dañu dem ci kenn koo xamante ni mu ngi jàppale mbëru làmb yi muy Cheikh Bamba Mboup yor association bi nga xamante ni mooy association FILS euh, jël ay mbër mbër defal leen formation garde rapproché jox leen li nga xamante ni ñooy seen lijaasa keroog bokk na ci mbër yi nga xamante ni ñetti mbër yi fa njëkk a génn am nañ liggéey ku ci mel ni tiijaan Faye su ko waxee nga xam ne jàmbaar la ci làmb tey ñu ñëwaat fekk la ci sa place nga nekk ci di daan sa doole ban yëg-yëg nga am ci loolu. waa jili dañuy santaat yàlla julli ci yoneen bi rek di sant ñi nga xamante ne ñooy euh, ñi seetaan di sant monde entier di sant suñu ñaari waajur di leen sant yéen ñii di sant ñëpp suñu dëkkandoo ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu nekkal ñuy sonti ñun guddeeg bëccëg loolu bi ma ko déggee dama si kontaan bu baax jili mais gisuma la ci. waaw gisuma gisoo ma si parce que yéex naa ko yéeg bi ñuy paree jël seen remise diplôme laa koy door a yéeg mais lu ma kontaan la te bi ma ko yéegee tamit am naa ci fierté trop parce que bu ma sañoon dinaa si bokk parce que bi ma ko yéegee daf ma dafa am fu ma jëlee foo xamante nii dama si kontaan bu baax a baax a baax ma leen di ñaanal yàlla ñoom ñi nga xam ne am nañ seen diplôme ñu liggéey si liggéey bu mucc ay ba nga xamante ne nii ëllëg gi sibi rek lépp luñ si bëggoon rek yàlla defal leen ko quoi waaw. mbër kon ku xam wax mbër wax métier. tey lan moo la inspiré ci lii ba nga dugg ci parce que aatu ñu ci bari ci làmb rek lañu la doon kii ak liggéey bi noo def ba maîtriser ko ba ni yor sa place bi. dëgg la man moom maa ngi si làmb ji ñu bëri majeure partie bi yëpp si la ñu ma xàmbe hmm. mais mosuma toog ñàkk liggéey. mosuma toog ñàkk liggéey maa ngi si business bi tout le temps maa ngi doon liggéey sécurité maa ngi doon. nekk si business bi ak yaa ma gën a xam jàppal bàyyi mais mosuma toog rek jàpp si làmb kese à nit ñi may jàppale moom mosuma toog jàpp si làmb kese maa ngi doon nekkoon ci sama bopp parce que leen dafa metti jiili muy ñaan mm-hmm. ñaan dafa metti boo mayee buñ la mayee nga rus buñ la mayee nga rus buñ la mayul nga mm-hmm. surtout boo ñaanee koo xam ne waroo koo ñaan dangay ngay rus buñ la mayul kon nag mieux vaut que ñun ñu góor góorlu jéem a jàpp si li nga xam te ni moom la ñu am ak lu ñu amul ñu jéem see jàpp xam ne yàlla rek moo fi nekk keneen nekku fi voilà loolu moo taxoon ñu nekk fii nii fii nga xamante ni nii ci la ñuy suturloo dañ ciy sandaat yàlla bu baax a baax nag bi nga xamante ni ku mel suñ kilifa suñu bàjjen bi nga xamante ni mooy suñu rakku papa mu yëkkati ko teg ko suñu loxo jox ñu ko muy aadama Diack duñu duñu dellu lu ko defaat du di ko sant bu baax a baax a baax parce que lii lii dafa rëy jox la alal loolu rek mënoo fay boromam kon lu dul def lu ba pare jox la ne la liggéeyal. voilà kooku ku la ko defal deseetu la dara. kooku ku la ko defal deseetu la dara kon du mënuñu lu dul ngeen xanaa ngeen di ñu gën a yokk ñaan rek bu baax loolu la soxla daal bu baax baax waaw. Atou fi mu toll nii làmb toll na ci moment boo xamante ni dafa taxaw. Euh, Covid 19 bi jàpp na àdduna wërngal képp ba mbër yi nga xamante ni jàppoon nañ ni sax waroon nañoo mën a bëre ku ci mel ni yow mi am na sa combat bu ma doon dégg euh, loolu yëpp dem ba jàpp euh, kii mbër yi nga xamante ni amuñu métier fi mu toll nii te yaakaaruñu ci dara ci lan lañ mën a jàpp. waa ji loolu moom dina métti trop si mbër yi nga xamante ne nii amuñu luñ jàpp amuñu xoo soutien boo xamante ne nii mën na leen a taxawu tey ba ñuy gis seen bopp. dafay metti trop trop parce que instant yi mënoo di dem entraînement ñëw di tëdd yoroo loo lekk yoroo loo naan te nit ku si nekk am nga soxla kenn ku si nekk am nga soxla boo xam ne boo ko soxla bu ñëwee tey boo sañoon yaay toog fajal ko sa bopp doo talal kenn loxo wala kenn du la gis kon làmb nag amuñu lenn loo xamante nii moo moo ko gën a kawe suñu njort parce que mooy suñu bëgg-bëgg moom la ñu bëgg moo ñu tax bu ñu nekkee fii ba léegi nii nekk si yenn yi làmb moo mais kenn ku si nekk ak li la si yàlla di jàggaleel kenn ku si nekk ak fi la si yàlla di jaaraleel du question ne gars yi dañu ñàkk fayda wala dañu ñàkk jom wala ñëw liggéey wala da di métier làmb boo si nekkee am na yoo xamante ni yu bëri doo ko mën a liggéey doo yor liggéeyu jàmbur yéen liggéey boo ko yoree bu heure entraînement jotee parce que chaque jour lu mu gat gàtt war nga def deux séances kon loolu boo si nekkee parfois dañu foog da nga bañ liggéey wala da nga yaafus wala lii mais du loolu millier lamb bi ñu nekk moo demee noonu loolu moo tax voilà. est ce que ku mel ni Atou Junior fi mu toll nii actuellement ci lamb oh, Obali kaay. <laughs> kaay kaay kaay kaay. ay Obali kaay gaaral gaaral gaaral ñëwal. ñëwal ah, mu doon ma koy jaajëfal bu baax a baax Obali fii laa toog def sama siège. taxaw mbëri ku nekk di romb benn par benn léegi mbëri kuy jóge dir rek fii lay jaar Atou kon dini jege na la. waa dindi bu ma moom laay fanaanoo moom laay moom laay yeewoo moom laay yendoo damaa jàkkaarloog moom. damay jéegi dem jéegi retourné. dini kuy dem dini romb sa place mun nga maa wax ban mbër nga ëpp looy looy gis tout le temps mu lay romb fii mu leer na kii ci dini la jëm. mbër bu ma ëpp lu may romb fii mbër bu ma ëpp lu may romb fii nag bëreegul arène. Rako Sabali la ñu koy wax Moodu. rakku Sabali. Sabali bu école it manga 2. bu hmm. parcelle. laa gis mu ëpp lu muy romb fii nii. à part moom si mbër yu mag yi obali mii laa fi gis ëpp lu mu fi romb obali waaw ñoom laa fi gis ñoo ñoo xam ne li fi jaar moo gën a bari quoi. waaw. Atou lan moo tax yéen mbër yu ndaw yi ngeen waane dooj. lépp looy wax si digganteem sa diggante ak ki ngay waxal rek nay loo xamante ni ku ko dégg rek dina leen waaw parce que kenn warul wax loo xam ne suba dañ la koy xeebe. mënuñoo bokk dëkk bi même boo ma waxee lu ñaaw man pour man du ma la wax lu ñaaw même boo bëggee bëreeg man di ma wax yenn yi duma la ko wax parce que ñoo bokk fenn fu ñuy yeewoo boo may supporter jiili Cheikh mi di ma supporter suba Cheikh da lay supporter suba Cheikh damay supporter kon mënuñoo ànd dem di rayante ji wëlbatikuwaat àndaat di ñëwaat du rayante lamb sport la aatu sport boo xamante ni tey sa mag boo bokkal ndey ak baay war ngeen ko mën a def parce que tàggatu yaram la di ngeen di ñëw xeex bëre yéen ñaar parce que bi ngay dugg ci làmb kan moo la ci dugal jiili lamb moo gën a lamb moo gën a individuel ci sport làmb moo gën a individuel ci sport ba tey boo siy dugg di bëreek nit na nga xam ki ngay bëreel wala ki nga ki nga nar a bëreel na nga xam foo xamante ne nii ëllëg ki sibir dara du la si fekk. luy loolu. dara du la si fekk gi mooy mënuma tey mënoo dëkk si kër gi ma dëkk si kër gi ñu war a bëri ji rayante chaque jour day xel di am ci buntu kër bi ba jour combat bi. mooy loolu ñu xamul sport ñoo koy def ñu xamul làmb. loolu parce que parce gis nañ fi mbër mu mag ku mel ni Bombardier bi muy bëreeg Modou Lo rakk Bombardier bu bokk ak Bombardier ndey ak baay Modou Lo la yéen ndam. te teewul Bombardier nee na da daan génn naan ko su ma jàppee sa mbër bi tey dinaa ko dóor ba mu kii ak dinaa ko def loolu. bi mu ko daanee da doon xëm. ji loolu far la waaw ak dëkk. loolu far la su la neexee nga faral ku la neex bu la neexee sa rakk ji nga bokkal ndey ak baay mu farak mbër bi ngay bëree mais dëkkul dëkk dafa garaaw jéeli dëkkandoo dafa garaaw dafa da nga koy jox li mu moom moom itam mu jox li nga moom mu jeex loolu la kese. mbokki Sénégal képp kuy seetaan wasaare làmba aatu li muy wax nii lu maa bëgg ñu déglu ko bu baax a baax a baax aatu man mënuma concevoir nga dëkk parcelle bàyyi fi parcelle dem ikiri Bada Jonn di fa entraîner Bada Jonn ma nga nekk rëbës nga bàyyi fi waa parcelle ba pare bëgg a xaritoog ikiri Bada Jonn bëgg a xaritoog ikiri parcelle parcelle ñaata ikiri fi nekk quatre xaw ma cinq ikiri dóor dóoraat fekkee ma ci boole euh, nu mu tuddati euh, parcelle mbooloo Rock Energy euh, Jàmbaar Wrestling Academy cinq écrits yoo xamante ne ñu ngi fi nga bëgg a xaritoog ñëpp aatu koy bëreel doo am xaalis. jiili yàlla na parcelle. yàlla na ci yàlla def mu naat. doon ay magasin magasin mais làmb boobu. jiili yàlla na làmb di parcelle. bu ma si doyee dara yàlla bu ma si may yàlla may dara kon bu làmb dee parcelle yàlla bu ma si yàlla may dara ci adversaire bu may am parcelle ma nar see bëreeg moom yàlla bu ma yàlla may si làmb dara kon. dama la bëgg a xamal ne la parcelle ak bawol laa yemale dugg benn mbër bu fay tag ngeen bu may bëree bu fekkee nag loolu moo ma nar a may alal ëllëg wala moo dara tax ma tekki bu yeboon yàlla teel ma koo wax wala nit ñi teel ma koo wax ma bàyyi. mais ah, est ce que xam ne espoir yow est ce xam na làmb dëgg-dëgg làmb. dëgg-dëgg làmb mooy lan. dëgg làmb mooy espoir la rek aatu bu leen ko jàppee fi ngeen ko teg làmb espoir la rek. man sama war ngaa mën a boole bëre ku ne. te teewul ay xarit ngeen. jiili sama ngor maa ngi moom xuloo yow fi mu toll nii. parce que maag yow dañoo seeq lu yàgg dañoo bokk lu kon sama ngor mayatuma muy xuloo yow man dama di nitu kaddu ba noppi di di góor bu ma nit ji ak ngor ngor googu dama koy delloowaat loolu foofu laay waxee am na ñoo xam ne mënatumaa jëflanteeg ñoom si làmb foofu pour nga dégg ko foofu laay waxee mais du question ne dañuy war a def nii wala dañuy war a def nii keneen nag ku ñëw ak ku mu mënti doon bu ñu làmb boole la ñuy bëre ray defante li ñu war a defante suba ñu àndaat nekk si jàmm mais mbëru Parcelles ak mbëru Bawol bu fekkee ne ñoo may may làmb ñoo may may xaalis ma xam ne duma am xaalis ci làmb am na mbër boo xam ne yéen a bokk fi ngeen doon liggéeyee ngeen bokk di liggéey ñii di ko gis di la gis mu dem ba ne yow la soxla bu ñu ko joxee te xam na la xam nga ko yow la soxla bu ñu ko ko joxee mu dóor la ba nga tëdd te gis nga ko. ban mbër la. Orka Mbaye Tine boo ko bokkuñu fi ñu doon liggéey de. lu xew. non bokkuñu fi ñu doon liggéey. dafa nekkoon marché Colobane. Hmm. man Colobane nekkuma fa dama daan jaar rek jàll xam nga samay business rek. ba yàlla dogal xaj na mu bëgg loolu bëggatu may wax si moom tey parce que bu wax si moom tey dafay mel ni dafa nekk sama xel pour ma bëree ak moom. moom moo la bëgg nga naan dafa nekk. moo même bu ma bëggee man bëreewuma ak moom léegi. ndax <laughs> orga wala li Lac wax ci orga bërki def boo la tiital. non Lac de Guiers 2 ma ko bàyyiwu ma ko sax xel. amul mbër mu mag bu may bàyyi xel. mbër mu mag bu may bàyyi xel si làmb ji nii nii. ba amul. xam nga li tax. dafa dafa am loo xamante ne nii bu koy mag bu si mag jiitoo dafa war a am noo xam ne da koy waxee wala mu koy defee ngir ay ngir xale yi ñëw ëllëg ñuy doxe noonu wala ñuy waxe noonu. ku wax jooju. mbër yëpp mbër yu mag yëpp. kan mu toll nii. fi moom damay ñaan yàlla yàlla Covid bi dem. kan damay ñaan yàlla Covid bi dem. loolu am du yàgg tuuti Covid bi. li ma leere leeree di incha allahu rabbi. ay ay cersa ko fi se loolu la ma leeree ni làmb ji dina waat ci jàmm. jiili yàlla na la Covid bi dem ñu dem ñu ñëwaat si làmb si jàmm ñu nekk si li ñu doon nekk gën a continuer si li ñu nekkoon yàlla may ñu comba ak ku ñu yàlla may comba boo xamante ni buñ ci daanee mu nekk suñu ubbeekukaay si làmb wala mu nekk loo xamante ni lu kawe suñu la yàlla yàlla defal ñu ko du ma fi toog. di tudd benn mbër mu mag wala benn mbër mu ndaw mu toog saalam di naan so soow di zirit di aji tànkam naan mbër mii nii nangam sax du ma ko defal kenn defaluma ko kenn mais ku ma yàlla booleel ci làmb ma bëreeg moom. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax. ci ñëw bi ma fi ñëw fekk fi Obeuly fekk la fi waxtaan ak yoo xam ne yeneen mbër yu romb yoo xam ne xam naa ni dañ maa rëcc. waaw dama lay jaajëfalaat di la santaat ak Basirou mii yow sama sama xarit nga sama nit nga. di santaat sama ñaari waajur di sant sama waa dëkk waa Réfane Ndereb euh, ndàngal ma di sant waa parcelle 1 ba 26 surtout waa Fajaa gi nga xam ne fi laa yeewoo sama yaay ramali aw ma fayam yàlla na ko yàlla fay sama papa Diène yàlla na ko yàlla fay ak njabootu ramali gi sama Kaaw Sow ak njabootam ñoom Fatima ñoom Wan yàlla na yàlla fay sama mag maam Thierno samay rak yu góor ak yu jigéen maa ngi leen di sant di leen gërëm. encore une fois sama mbajan Adama Diack yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla gën a kattanal yàlla na ko yàlla defal lépp lu mu bëgg. di sant sama xarit bi xam ne Cheikh chaque jour Cheikh Tall ñooy nekk guddi ak bëccëg ba ñu xamante léegi yàggul mais day nit koo xamante ne nii nit ku jara àndal la parce que nit moom boo gisee ci moom ak nit rek. pour nga ànd ak moom day yomb te sama papa daf ma daan wax naan boo àndeek nit ren bu déwénee fexeel ba na nga ànd moom kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant ñëpp di leen jaajëfal di kontaan ci émission bi ngeen ma defal nii di xam ne nag du loo xamante ne nii lu ma préparé daf maa bett. <laughs> dama laa siif quoi dama laa bett. <laughs> jékki-jékki rek maa ñëw kànja kay. <laughs> Euh, lan ngay wax wasaare yow gërëm nga mais gërëmoo wasaare. non wasaare mënuma leen a ñàkk gërëm parce que mooy li ma wax rek damaa bokk si wasaare Basirou mii sama sama nit la ñoo bokk Jurbel boo nee Bawol da naan Jurbel kon Basirou ñoo bokk Jurbel yow itam maag yow ñu ñëw am lu ñu bokk ci Jurbel leen li nga dindi ko teg ko fële. <laughs> bu dama war a sant waa Saalum de parce que damaa bokk Saalum. sama mbokk yi ma dëkkal fii Saalum Saalum yi. ñoom Aadi ñoom Seexna ñoom Seexu ñoom ñëpp ak seen waa kër yëpp dama leen di sant di leen gërëm di sant sama waa koñ. waa koñ dama leen di sant bu baax a baax a baax waa Fajaa fi nii dañ si jàpp bu baax a baax a baax di wax client yi nag nañ ñëw place baa ngi nii liggéey gaay baa ngi nii lépp xéewale na euh, ne yàlla si yàlla def jàmm daal. amiin jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaara làmb Atou Junior laa seet si woon ñëw fii teg sama siège Fadia ñëw fekk fii yenn sàmp yooyu ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi loolu laa leen doon wax. saa su ne mbër dafa war a am ci loo xamante ni gaaw gannaaw làmb ci ngay yëngu euh, mën cee nekk parce que làmb sport la boo xamante ni yàggul tey képp ku ci nekk rek li la yitteel mooy wala li nga ciy yëngu teral say ñaari waajur dong moo la tax a jóg te fépp fu waay nekk àdduna war naa mën a nekk ñu leen di jaajëfal bu baax di ko jaajëfal encore une fois Atou Junior di tàgg mbokk yi seetaan wasaare làmb ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jër ngeen jëf ngi naa